info soir comme tous les soirs ñoo am mbégte dellu siwaat ci plateau bi euh, ci première partie bi nag ñu ciy dalal euh, directeur général bu Sonacos war ci wax ci wàllu gerte gi ndax nag campagne de commercialisation bi door na ni ngeen ko xamee euh, trois décembre ba la ñu génn ñuy nuyu bu baax Modou Diagne Fada di la dalal ci plateau info soir maa leen nuyu Binta di nuyu say téléspectateurs yu góor yi ak yu jigéen ñi di am mbégte di ñëw ci seen euh, plateau bi pour wax ci euh, wàllu wàllu gerte gi voilà. dinañ wax itam ci wàllu politique bu ci xajee ndax nag xam ngeen ne moom mooy président euh, parti politique boobu ñuy wax LDR yeesal bu ci xajee kon dinañ ci ñëwaat ci actualité bi ci langue politique bi li xew ci Sénégal ma di ci ànd ak Cheikh Tidiane Diagne di la nuyu bu baax. di la téléspectateurs télévision euh, Futur Média am yaakaar ni waxtaan bi nga xamante ne nañ ko seq ak suñu gan gi di Modou Diagne Fada euh, xëy na askan wi dana si jëlee daal li nga xam te ni daal moo di nga neen euh, Modou Fada campagne dañ jaayum gerte gi door na 3 décembre ba la ñu génn fi nga jiitee muy makkaan sa makkaan muy Sonacos amoon na dafa am yéene jënd bile yoon 150 000 tonnes ci gerte gi bi mu dooree le 3 ba tey ana fan ngeen ci toll Euh, ñu ngi lay gërëm euh, Binta di dalal xelu sénégalais yi nga xam ne ñoo ñuy euh, seetaan campagne bi ubbi na le 3 décembre le président Macky Sall ci conseil de ministres bi ñu passé moo jël dogal bi fixe yi tamit njëg gi 210 francs prix plancher daañ ci dellusiwaat xañ na ci ci kanam bi mu ko defee nag ci le même jour bi ñu demee assemblée nationale ba 13 heures 14 heures jot dama daal di wàcc ci terrain bi jaar Diourbel seet nan la fa campagne bi tàmbalee euh, ba mu fa jógee ma dem ni Kaolack xëy suba dem euh, Kaffrine euh, dellusiwaat itamit Lindiane ba démb ak monsieur le ministre de l'agriculture et de l'équipement rural mu lancé officiellement Euh, la campagne euh, la campagne de commercialisation de l'arachide alors suñu xel dal na parce que Euh, Diourbel fii ñu toll nii lu mat juróom-ñaari camion déchargé gun nañu ci ñaari fan ñoo am fa lu toll ci téeméeri tonne ak euh, fanweer ak juróom juróom-ñett Kaolack euh, lu mat juróom-benni camion déchargé gunu wala déchargé gun nañu ñu am fa lu mat téeméeri tonne ak fukk ak juróom. wàllu sud bi nag muy Kolda ak Ziguinchor tàmbaleeguñu parce que xam ngeen foofu euh, liggéey bi pareegul muy mbàcc meeg euh, bees beek yooyu pareegul moo tax ñoom euh, amaguñu camion mais daal ci li ma for waxtaanee kook ñi nga xam ne yàgg nañoo topp campagne agricole campagne arachidière jafe na semaine bu njëkk bi. nga mën a déjà dajale lu toll noonu si ay camion ak lu toll noonu si si gerte kon mën nañu jàpp ne bu ñu demee ba si euh, kanam ba ñëpp pare parce que même bi may dem Kaffrine maa ngi romb naaf yi romb euh, gerte gi ñi di. Eh, di ko di ko bees pare gu ñu woon mais je que bu ñu paree ba ñu toll ci digg campagne bi je crois que li ñu bëgg muy cent cinquante mille euh, tonnes euh, mën nañ ko am ba sax wut ko dépassé. Mhm. Euh, incha allah pour que ñu mën a am gerte gu nga xam ne. usines yi daañ ci mën a liggéey mhm. mais aussi ñoom gerte gu nga xam ne daañ ko mën a bokk ak organisme yi nga xam ne dañu nekk si kaw gi tey liggéey ci wàllu wàllu gis nañ ne yaa ngi yaa ngi rafet njort ci ci wàllu wi mais récemment on a entendu le ministre de l'agriculture di woo euh, producteurs yi en esprit patriotique ndax nee nañu aussi mu ñu jaay ñu jaay leen yéen waa Sonacos moo gën ñuy jël gerte gi di ko jaay ñeneen pour euh, sauvegarder la capital semencier euh, est-ce que ministre dafa am lu mu ragal foofu moo tax muy appelé non je crois que je crois que devoir am rek la def en tant ministre de la République Euh, bu doon président Macky Sall aussi noonu lay waxee yàqu soit que bu doon yowee tamit noonu la ñuy wax soit que la préférence nationale warul nekk rek un thème un thème vain suñu amee suñu société bu nekk une société nationale nga xam ne ay doomu Sénégal yu bari ñoo ci liggéey ci daan seen doole tabax ci seen kër yor ci seen njaboot yaakaar ci nekk ci ba retraité ñeneen nekk fa ñuy ko ni dem mais bu ñu sañoon lépp lu nga xam ne dafay taxawal liggéey boobu du am te li bokk na ci li mën a taxawal liggéey boobu amuñu matière première. suñu amul matière première mais Sonacos mënul mënul liggéey suñu amul matière euh, première yeneen huiliers yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi tamit duñu mën a liggéey ñu jàpp rek ne bala ngay laax jaay. da ngay laax euh, lekk je crois que appelu ministre bi ci foofu la jëm ndax su fekkee ne yow da nga nekk opérateur euh, semencier gouvernement bi jox la semence subventionné ko jox la intrant. subventionné ko jox la matériel agricole subventionné ko yëf yi ñor keñ wax dëgg yàlla ci kuréelu état bi nga ko war a jaay mi war a wax rek ne tey marché bi neex na xaaral ma dem jaay ji juróom benn fukk wala juróom ñaar fukk bàyyi fële li nga xam ne. mooy si pourquoi euh, pas bu fekkente ne gis nga ñu mel ni chinois yi tey ñëw ñu lay jaayee 300 francs 400 francs yaakaar naa ne doo ko fa ñëpp ñëw naan da ngay jaay état bi at 200 xam nga xam nga teewaayu étranger yi ma bañ a spécifier tudd ñu jóge ci benn dëkk. Mm-hmm. Euh, dafa nekk lu nga xam ne lu baax la ci économie réew mi. parce que tamit euh, marché man en tout libéral la li ma gëm mooy concurrence ñoom am nañ seen atu seen atu yi ñu am mooy njëg gi. mais seen njëg ci jamono bi lay toll c' est la loi de l' et de la demande. la loi du marché loi du marché fii ñu toll nii gerte raar na ñu yéegal seen njëg mais tey bu Sonacos tëjoon ñu ne gerte bari na ñu wàcc seen njëg mm-hmm. donc boo ci wékkoo ci ñoom. mën na nekk lu nga xam ne mun na laa indil euh, jafe-jafe benn ñaareel bi aussi dans la concurrence kenn ku nekk ak say argument ak ñun suñu argument xaj na euh, pour le moment nekkul nekkul njëg gi parce que ñun 210 euh, la ñuy la ñuy jëndee te 210 yooyu ñuy jëndee dafa nekk volonté politique bu nga xam ne chef de l'État daf ko exprimer foofu parce que tey calcul yëpp li mu wane mooy kilo gerte fanweer la war a jaar président Macky ne loolu xalaatu ko. lu mu yées yées yées nañu ko jëndee 210 lu mu yées yées dañ ko jëndee 210 nag lim undu aussi te président Macky Sall waxaale ko mooy ku mën a jënd téeméer jëndal ku mën a jënd juróom-benn fukk jëndal ku mën a jaayee téeméer jaayal ku mën a jaay donc kooku xam kon mu ngi protéger euh, paysan bi te même suba bu fekkente ne offre bi dafa bari aussi. daf ne lu mu yées yées bu kenn wàcc deux cent deux cent dix donc ak noo ko mën di jëlee je crois que am na ay fàggute fi mu jël pour ko daal béykat bi moom mun ci gis boppam naa ñoom am nañu loolu tey mais ñun tamit li ñu am mooy le circuit officiel li ñu am mooy la garantie euh, li ñu am mooy gaaw la fay parce que loolu tamit jàpp naa ne lu bees la ci ci ci campagne bi xaalis bi jiitu fi euh, gerte gi ñu def teggi teg ca ki indi gerteem tey ñu fay ko ñu fay ko tey ensuite ak ay instruments de mesure yu fiable parce que ñi nga xam dañuy jën ci àll bi tamit ay bons impayés non non non yooyu wax waxuma la sax bon impayé mais dañ ne sax du am rupture de paiement maanaam du am sax rupture de paiement boo joxee sa gerte tey lu mu yéex yéex suba ginnaaw suba aujourd'hui nous sommes assez liquides ah. grâce au soutien du chef de l'État du ñu may ñu mën a dem Arabie Saoudite teel a dem Arabie Saoudite waxtaan ak waa banque islamique fexe ba sax ba ren début campagne bi kenn lebaluñu xaalis Sonacos bu daan commencé campagne début bi dañ ko daan lebal xaalis muy les banques relais ñoo ko daan lebal xaalis pour mën a tàmbali ren nag ñun ñoo jël suñu xaalis dénk ko banque yi di ca jël li nga xam ne moom la ñu soxla pour fay pour fay opérateurs yi démb d'ailleurs wax naa fii tonnage yi nga xam ne moom laa lim ku déposé sa gerte Sonacos entre le 3 le 4 le 5 jot nga tey jii may wax ak yow sa check mu ngi sa poche wala sa ordre de mu ngi ci sa biir compte compte compte banque yaakaar naa loolu yi tamit mbir la yu nga xam ne euh, te instrument de suñuy pont bascule dafa fiable gars yi nag li ñuy jënd ci àll bi léeg la ñuy ñëw ne dama lay jënd damay jëndee deux cent soixante deux cent quatre vingt yow baykat bi nga jàpp ne euh, fi nga jàpp dëgër na mu peese dem mais nax na la ci poids bi donc am na mbir yu bari yu nga xam ne boo ko seetloo li gën a wóor. mooy nga jël sa gerte dugal ko ci surtout officiel circuit bu am stabilité circuit bu am garantie mais circuit bu nga xam tamit dafay dundal sa réew dafay dundal sa entreprise yaakaar naa ne kenn ku nekk ci ñun war na mën a am euh, taxawaay boobu. alors euh, monsieur le ministre léegi léegi maa ngi la dégg aussi ngay ngay indi argumentaire par rapport ak li nga xamante ne moo di prix bi c'est vrai que état fixé na li nga xamante ne moo di officiel bi mais tey est-ce que ndax xel mën naa nangu itam.

moom la état bi fay dañ koy dem jaay ko. xam nga leeral bi may leeral rek bu gouvernement bi ne prix plancher 210 gouvernement waxul prix 210 de dafa ne prix plancher 210 ça veut dire que lu ko tàmbalee 210 ba mille francs lu neex waaye jëndee lu neex waay jaayee. loolu tamit souvent dañuy tuumaal gouvernement naan prix officiel non non gouvernement daf ne prix plancher. maanaam du prix bu fixe. non du prix bu fixe mais li gën a yées rek lañ la wax. Mhm. maanaam li nga xam ne nga jaay ko voilà li nga xam ne moom boo ko boo ko wàccee yoon dal sa kaw. d'accord mooy deux lay jënde deux cent dix lay jëndee. deux cent dix lay jëndee ci producteur bi. ci ci non ko sax li muy jëndee ëpp na deux cent dix parce que dinaa ko leeral léegi. Mhm. produ opérateur bi moom mooy jëndee deux cent dix ci baykat bi. mais ñun li ñuy jëndee li ñuy jëndee mat na deux cent trente deux cent trente sept. parce que dañuy tegal marge opérateur bi quatorze virgule cinq francs ci kilo bu nekk. dañ koy. mais parce que mooy liggéeyam. moom bu demee voilà mooy bénéfice am. bu demee jënd ci àll bi ci baykat bi 210 dañ koy tegal marge am 14 virgule mais dañ koy fayal aussi transport 12 francs bu fekkente ne fi mu ko jëlee ak bureau bu Sonacos bi rombul 150 kilomètres parce que bu dul lool moom tamit du du man du ci mën a am. am donc ñun boo ko xoolee lim ñuy dikk 236 point 5. la ñuy la ñuy la ñuy dikk alors donc li président Macky Sall wax te mu nekk lu nga xam ne souvent Sénégal dañu ci bàyyi président Macky waxul ne njëg yi 210 la. parce que bu fekkoon dafa njëg 210 la même ku dem ci luuma yi di fa bëgg a jëndee 230 wala 250 yoon dal sa kaw. mais est-ce que dafa wax ne dafa wax ne dafa wax ne 210 mooy li gën a néew. donc lu ko tàmbalee 210 jëm ca kaw kum neex nga jënd kum neex nga jaay yaakaar naa loolu tamit wax naa ko léegi. mbir la mu jara mu jara leeral bu bu bu baax a baax te gëm naa ne loolu tamit li ko tax a jóg mooy bëgg baykat yi am lu ñu def seen gafaka am lu ñu dugal seen seen poos euh, am yi tamit buñ ko buñ jëndee mënee jënd téeméer baax na bu buñ mënee jaayee juróom-ñaar fukk baax na ñun amuñu ci benn benn benn problème loolu sax moo ñu gënal boo ko dee boo ko dee seet mais li ñu wax rek mooy kiy jaay aussi na xam ci muy jaay lan la ak li ñu koy peeseel est-ce que poids bi ñu ko déclaré moom la wala wala du wala wala wala wala du moom est-ce que wóor na wala wala wóorul est-ce que tey bu ñu nee woon na Sonacos tëj na usine yëpp tëj ñu bàyyi njënd meeg njaay moom ak ñu nga xam ne dëkkuñu si réew mi ñooñu bis bu ñu demee ba dem nan la filier bi di def moo tax ma jàpp ne ak lu mën di xew war nañ ko organiser ba nga xam ne huiliers yi daan ci gis seen bopp euh, exportateurs yi muy ñu nga tudd daañu ci gis seen seen seen seen seen bopp mais ñi nga xam ne ñooy opérateurs yi di dox suñu diggante. ak paysans yi aussi gis ci seen euh, gis ci seen bopp. mais gis nañ ne euh, yow avant ngay ñëw peut-être mën naa wax que vous avez la baraka parce que am nga xaalis bi avant l'heure mais avant ngay ñëw dañ daan dégg sous le magistère de Pape Dieng que producteurs yi di réclamer seen xaalis à Sonacos bi nga ñëwee lan nga fa fekk bor wala euh, jeexal fay ngeen ko ba mu jeex. xam nga Bint maa ngi nuyu Pape Dieng le directeur général Pape Dieng je crois que lim manoon ci wàllu liggéey wàllu coono wàllu sonn. wàllu taxawu Sonacos def na ko euh, kër nag da fay nekk ba sa lim sa àpp jot nga dem keneen keneen ñëw c'est comme ça que ça s'est passé avec euh, entre entre entre nous te da ngay ñëw fekk ay tànk yu nga xam ne nit ki def na ko nga yokk jéego yi jàpp naa ni tamit loolu moo tax souvent ñu wax waaw xam nga Sonacos am na ay bor loolu moo géej gi saf na xorom ñoo ñoo yem mais du Sonacos dong moom ay bor mm-hmm. société yi nga xam ne bari nañu ay bor aussi bari nañu waa ñoo ngi ci ñoo ngi ci déjà déjà na déjà déjà instruction yi ma jox su may service mooy bépp bor fournisseur mm-hmm. muy les petites et moyennes entreprises les petites et moyennes économies ñi nga xam ne dañuy ñëw ñu fay ñu amal leen transport parce que jël nañ suñu gerte yóbbu fenn ñi nga xam ne dañu war a jënd ci ñoom ay préforme wala ñu war a jënd ci ñoom ay pièces de rechange wala leneen dama ne rapidement dama ne bor yooyu bu mu taxaw mm-hmm. parce que li tax warta taxaw aussi mooy ñooñu dañu yore ay emploi te la meilleure façon de lutter contre le chômage mooy entreprise yooyu bu ñu am problème ñoo ngi leen di recenser ñoo ngi leen di fay ku ci def réclamation bu ñu la amee les quinze millions avance le sept millions tey ne la bu ñëwee bu ñëwee ñu mottali la te incha allah l' mooy fay loolu beneen dette bi doon des dettes ay retraités yu nga xam ne dañu liggéey si kër gi ba dem à la retraite euh, doon topp ci li nga xam ne ñoom ñoo ko doon cotiser mm-hmm. bi ñu nekkee ci jamonoy Sonacos biñ ñëwee biñ ñu ko waxee juróom benn weer lañu fi defagoon amul benn retraité bu nga xam ne léegi amee nañ la ñi ci mujj ay chèque un million lañ leen defal kenn ku nekk euh, booru gàmmu gi avancé nañ leen booru màggal Touba. avancé nañ leen lu jëpp tabaski donc ameelatuñ leen dara. ñu ngi fay ay prime de de de productivité ñu ngi fay allocation euh, familiale donc jàpp naa ne te ensuite ñu ngi fay suñuy échéance loolu moo ci ëpp salo parce que xam nga ne at mu jot. Sonacos dañ koy lebal xaalis pour mu campagne mu jënd gerte mais loolu ñu koy lebal dañ koy wax ne ko fukki weer ñaar la yem biir fukki weer ñaar il faut nga delloo liñ la liñ la donc dañ ko koy séddaleel ci at mi ne ko échéance bi da nga joxe 5 euh, millions de de dollars échéance bi nga joxe 4 millions de dollars avant ñuy ñëw nag ay difficulté amoon na fa yu nga xam ne défaut de paiement la Sonacos nekkoon mais yàlla mu ñuy suturaal mois de mai ba léegi amul benn échéance. bu nga xam ne Sonacos fayu ko. mieux Sonacos sax day dem léegi. bay anticiper ay échéance am mooy li mu ameel banque banque banque islamique. Mm-hmm. échéance mois de janvier janvier 2020 le 27 janvier 2020 moo doon échéance bi incha allah balaa le 10 décembre. dinañu ko fay. gis nañu banque islamique bi yoon moom moo gën a fës ci ci seen campagne euh, te avant dañu daan dégg crédit agricole moom moo leen financer la campagne de la Sonacos demoon nañu sax bay wax euh, banque verte. loolu yëpp dégguñu ko bile yoon. lu ko xam nga xam nga li ko waral mooy. Mhm. Euh, ndaka jekk banque islamique ñetti at yi ñu passé ITFC muy filiale banque islamique mhm. ñoom ñoo daan financer campagne mais ni mu daan demee nag mooy comme ñoom daaw ñu daaw ñu comme financement bi daawul teel a ñëw mhm. par exemple financement campagne 2018 2019 non 2018 2019 euh, waaw euh, ñu ngi ko premier décaissement bi ñu ngi ko am le 27 janvier 2000 2019 mais avant le 27 janvier 2019 fekkoon na campagne bi ubbi ca décembre mais pour que Sonacos doon ci génn nag ci la daa dem ci banque bu mel ne bi nga tudd léegi. agricole ah, banque agricole wala dem ci BNDE wala dem ci beneen banque ne lebal ñu xaalis moom lañ daan wooye banque banques relais. Mhm. lebal ñu xaalis ñu tàmbali. comme ça su ay TFC e ñëwee fay la loolu tamit nekkoon ay pertement yu mag Sonacos mhm. parce que Sonacos da daan dem leb ci banque yi ñu teg ko intérêt. ba pare ah, banque islamique aussi di ko teg intérêt. ren nag loolu la ñu dindi banque relais amul parce que teel na ñoo jóg teel a dem négocier ji. ba am koppar yi nga xam ne moom la ñu war a am ba nga xam ne fi mu toll nii mooy li mu wax léegi ñun ñoo dénk banque yi tey tamit loolu beneen intérêt bi ci nekk non seulement euh, amatuñu ay intérêt ñuy tegal ensuite financement bi dina gaaw mais xam nga bu njëkk bu la banque daan lebal nga ñëw fekk Binta jàll mu nekk OPS nga war ko defal facture 60 euh, million pour mu dem fayee ko ji comme banque bi daan daan lebal léeg-léeg boo bu Binta ñëwee mu ne ko non fi xaalis. mu daan indi ay yéex-yéex mais ren nag loolu mënul am parce que suñu xaalis lañ fa dénkaane te nee la man ak monsieur le ministre de l' agriculture démb ay chèques dañ doon def euh, teggi teg ca. Mhm. ku joxe tey ñu fay la tey ñi nga xam ne joxoon nañ leen chèque seen chèque yépp démb leer na ma ne tey jii. koppar yaa ngi ci seen biir biir poste. Mhm. donc ren ay bon bon impayé moom dañ ko romb. mais gis nañu avant démarrage su campagne euh, agricole bi <laughs> électorale laa bëggoon a wax mais agricole euh, wala arachidière euh, que dañu wax ne gis nañu dans la presse ñu bind que ne producteurs yi ñu ngi brader seen ay récolte parce que CNIA dafa yéex a fixer le prix au producteur est-ce que loolu du yàq indi benn gàkk-gàkk ci campagne. non ren moom li ma dégg mooy plutôt baykat yi kaañu nañu. parce que avant campagne bi di commencer kilo gerte dem na ba trois cent nangam. donc yaakaar naa ne euh, dañoo teel a tàmbali. loolu tamit ça se boo demee tey dans le nord du pays nit ñi presque pare nañu. dans le centre du pays ñi féete ci kaw xaw nañu pare mais ñi ci suuf pare guñu boo demee dans le sud moom presque dara dara pare gu fa ci wàllu euh, defar bi ñuy defar gerte gi pour man koo pour mën koo jaay donc ren. at euh, waxtu wi nga xam ne rek moom la seeñaa daan fixé prix bi mën nañu wax ne euh, soriwu ko soriwu ko trop xëy na nag ren dafa xawoon a gën a jafe euh, waxtaan yi parce que xam nga seeñaa yi tamit kuréel la gu ëmb ay ay ñu bare bare mm-hmm. balay président bi di wootee ndaje nag war na am ñu mu ñu mu déyool déyoog ma sàmba déyoog ma dem ba pour ñu waxtaan pour que bu ñu àggee ba ci waxtaanu mag ba mm-hmm. ñu mën a déggoo mais déyoo boobu nag kañ na moo xawoon a yàgg mm-hmm. parce que dafa am ay privé yu taxawoon temm ren ne comme amul comme état bi du subventionné ñoom duñu bokk ci campagne bi wala bu ñu ci dee bokk yi tamit du ñu romb 170 francs su Sénégal mën naa fixé prix bi 170 daal ñu bokk su ko Sénégal mënul nag ñoom du ñu bokk wala bokk du ñu ko nangu. Mhm. ay Sonacos ay organisation paysanne ay élus ñoom ñoo taxaw ne li privé yi bëgg du fi amee parce que ñun mënuñu nangu. Euh, prix bi yées deux cent deux cent deux cent dix donc waxtaan yooyu nag dafa laajoon jël jël temps mais je crois que Sénégal def na liggéey bi ni mu ko war a defee alhamdulilahi rabbil alamin euh, proposé na prix bi prix bi valider nañ ko mu nekk un prix plancher de deux cent dix te dama bëgg le mot plancher alors monsieur le ministre juste une dernière question par rapport ak Sonacos actuellement nii xam nañ ko Sonacos bokkoon na ci fleuron économie industrielle du Sénégal gis nañ ko Sonacos a vécu quand même énormément de difficultés mais tey jii nii ba nga ñëwee léegi ban jéego nga ci def pour permettre à la société mu nekk en tout cas euh, sur ses pieds comme on dit. voilà l'objectif en tout cas que nous nous sommes fixés c'est pas seulement de pouvoir payer des dettes de pouvoir payer des fournisseurs kooku c'est c'est pas l'objectif mm-hmm. vraiment bi ñu indi c'est important nag mm-hmm. parce loolu moo lay wan ne yaa ngi dox mm-hmm. mais vraiment ñun li ñu bëgg mooy euh, jaabal li ñu bëgg mooy euh, daw bu baax a baax a baax pour que Sonacos dellu mel na mu melatoon. mais est-ce que su boobaa ngeen xool tamit seen campagne de communication parce que bu ñu nee Sonacos pour pour la généralité dañuy jàpp ne diwlin kese la alors que am na ay produits dérivés yi nga xamante dëgg la dëgg la dëgg mais c'est Euh, euh, at yi ñu passé yëpp presque doo lim daawoon da dootu leen koon gis ci biir marché bi. mooy dosette bi mooy dosettu niinal bi wala. Euh, li ñuy wax muy. muy muy ñëwaat na bu baax muy aradoor bi wala ñaani bi. Mm-hmm. léegi boo demee si boutique yi dem ci surface yi grande surface yi da leen fay fekk. Mm-hmm. donc mais ambition bi ñu am. te loolu mu ngi tàmbali parce que dañuy wax ne ndimbal dañ ci fekk loxol borom. Mm-hmm. le président Macky Sall ci conseil des ministres 18 septembre jox na ndigal ministre de l' agriculture. ministre de des finances et du budget ministre de la coopération neleen leen na ngeen moderniser <clears throat> te ngeen restructurer la Sonacos boobaak léegi tamit en relation ak la Sonacos ñu ngi ciy liggéey tey jii am nañ benn plan d'urgence bu nga xam ne ñun bi ñu ko estimé 16 milliards de francs CFA la mu ngi ci circuit bi pour ñu seet nu ñu amee ay partenaires yu ñu jàppale pour que parce que ñun attan nañ loolu ñun ku ñu lebal loolu mën nañ la fay suñu wàllu bopp li ñuy soxla rek mooy caution état mooy garantie garantie garantie garantie état pour que ñu mën a euh, moderniser restructurer Sonacos parce que sonakos du benn bërëb dong Sonacos mu nga Louga Sonacos mu nga Kaolack Sonacos mu nga Ziguinchor Sonacos mu ngi dakaar ah euh, Sonacos mu ngi ci mu ngi ci dëkk yu bare bare tereen ji ci campagne de commercialisation bi pour atteindre cent cinquante mille tonnes yi mais pour gën a jigee aussi baykat yi ubbi nañu benn dépôt bu mag Kaffrine ubbi nañu benn dépôt bu mag Kolda ubbi nañ aussi benn dépôt bu mag fi nga xam ne mooy Tamba mooy Tambacounda donc Sonacos mën nañu wax ne mu ngi wër mu ngi wër euh, réew mi yëpp donc plan boobu bu ñu ko financé Sonacos mën na dellu fa mu fa mu nekk mais en attendant sur fonds propres parce que ndimal na ca fekk loxol borom le travaux de fin de campagne de cette année d'une valeur d'un milliard cinq cent millions de francs fa ñu jëlee ko suñu gafa ko bopp ñoo ngi fexe fexe ba am na ñetti atelier yu am solo ci biir Sonacos muy atelier détoxification ñu amoon jot daañu leen leeralal mais mooy bi nga xam ne moo ñuy may suñu ràkkal ji ñu mën ko jaaye ji Europe tey jii depuis ñetti at ñeenti at suñu ràkkal ji mu ngi fi jógee mënu dem Europe parce que amuñu woon détoxification incha allah daañu ko réparer 2020 waaw beneen atelier bi mooy atelier d' xam nga ne ràkkal ji bu ko usine bi génnee noonu rek des na lu mat 10 pour 12 pour cent 14 pour cent 20 pour cent dëwlin daañu fexe ba loolu tamit ñu réparé ko ngir mën a euh, am. un taux de rendement plus important beneen bi mooy autonomisation en énergie parce que tamit euh, autonomisation en énergie nekk na lu nga xam ne lu baax la parce que Sonacos mënul wéy ci euh, électricité li dese daanaka bareetul maa ngi ko doon wax sànq yaay jiite LDR euh, yeesal di parti politique boo xamante ni depuis la présidentielle da ngeen jàppale le président Macky Sall am na ñaari xew-xew yoo xam ne am na fi très rapidement ma bëggoon la ci laaj muy mën ngaa yem gi rek lay sax du politique ndax dañu gis ne naufrage bi am ca ca Mauritanie ba ay sénégalais eh, gaañu ci am na ñeneen ñi ci faatu mais am na quinze sénégalais yoo xamante ne faatu nañ ci lan moo ci sa gis-gis. d'abord ñu jaale jaale seeni i seen i mbokk euh, di ñaan yàlla mu tàbbal leen euh, àjjana ñu jaale aussi suñu mbokk yeneen pays yi sous région yi nga xam ne ñu ngi woon ci ci gaal googu euh, nga xam ne départ wul fii quand même départ wul Sénégal ci beneen réew la. le le le départ euh, di wax rek ne immigration clandestine euh, dafa nekk phénomène bu nga xam ne phénomène bu bu doy waar la euh, dafa nekk phénomène bu nga xam ne phénomène bu bu jéggi dayo la te yaakaar naa ne li ko mën a xeex dëgg-dëgg mooy réew yi lëkkaloo d'abord réew yi nga xam ne ñoom ñooy pays de départ yi d'abord ñoom ñu lëkkaloo harmoniser seeni législation harmoniser seeni mesures ba li valable ci Sénégal mën a valable ci beneen réew bu nga xam ne moo nekk suñu suñu wet parce que bu dul loolu bu jafee fii tamit. gaa yi dañuy dem fële euh, daal di fay jël bateau benn ñaareel bi aussi réew yi nga xam ne ñoom ñooy réew yi war a teeru ñooñu nga xam ne ñooy dem ñoom itamit ñu waxtaan ak ak ñoom. pour que ndimbal wala jàppale bi nga xam ne war nañ ñu koo jàppale aussi mm-hmm. ñu yokk ko ba nga xam ne ñun tamit daañ mën a jël suñu fàgguteef pour mën a xeex ak loolu nga xam ne mooy immigration. gouvernement yi aussi fexe nu xale yi toogee fixer les jeunes. Euh, loolu loolu loolu lu am solo la. yaakaar naa ne lii li li Sonacos di def déjà. Mhm. at mu jot même bu fekkente ne budget mayu ko mu def ay contrat à durée euh, indéterminée mais mu jël ay ay lu ñuy wax ay saisonniers. ay xale di leen liggéeyloo juróom ñetti weer fukki weer fukki weer ak benn léegi si benn et loolu loolu loolu <laughs> bu ko société yëpp defee gëm naa ne euh, daañ gën a mën a fixé xale ñi ngeen mi ngeen dugal ci ci kaso bi nag ak ñi mu àndal naka nga naka nga ko gisee sur une minute euh, non je crois que Guy Marie Sagna moo dugal boppam ci kaso nag ah mais moo def lu ñuy tere mm-hmm. xam nga réew nag dañ koy organiser mm-hmm. euh, man mii ba ma daan def lu mel noonu dama daan dugg kaso. 88 89 93 ak leneen leneen. am na tamit ñu ko fi def te dugguñu. waaw <coughs> mais en tout cas man li ma xam man sama bopp daal laa xam man daal ba ma daan def yu nga xam ne dañ naan nga d'accord marche bind autorité bi. wax ko fi ngay jaar pour que moom mu mën a jël ay fàggu teefam. Mm-hmm. autorité bi nag mën naa laa wax ne la d'accord tey baax na. wala boog bu baaxul mu la suba. wala yoon bi baax na bu baaxul mu la nangam. waaye nag yow bu fekkente ne euh, da nga def lu ñuy tere yaakaar naa ne bon gi amul benn problème ci li nga xam ne moo ko daal parce que de toute façon xamoon na ne bu ko defee tamit lii dina ko. lii dina ko daal ñu ngi lay gërëm bu baax ñu ngi lay bu baax Modou si teewaay bi si plateau info soir ñu dem publicité dellu si waat ci plateau bi.